mu mel ni ki Baldé soo bëggee dégg-dëgg daa quelques instants ñu dem ci Ada Fass Tapha léegi nag ma taxaw ak benn technicien Cheikh Ndiaye boxeur l'entraîneur de booy Niang mu ngi nii ma bëgg koo laaj Ada Fass ak Tapha Mbeur combat bi tey lu koy ubbi ak lan moo ko war a jeexal coach su Cheikh maa ngi lay ziar. maa lay fay Babacar di la jox sa wàccuwaay di wax ne nañ félicité waa làmb tey ku xool arène nationale ni mel xam ne làmb dañoo war a comprendre nga jëmbat si fula dimbale promoteurs yi dimbale waaxlu làmb parce que xoolal tey ñaata personne ñoo fi nekk ku fi nekk tey fàtte nga li nga xam ne moom mooy sa euh, jafe-jafe di wax nag si diggante Tapha Mbeur tey tey tey ñaari saay-saay la ñu boole ñaari nante mais dafa nante bu gën a wane boppam muy ki nga xam ne moom mooy Tapha moo gën a wane mais Ada dafay nëbbu boppam à chaque fois tey man su ma indi woon ki nga xam ne moom mooy Tapha Mbeur dama koy xeexloo ba aada jël ku nga mu door a bëre ji su ma jëlee nag ki nga xam ne moom mooy Ada ndox du bàyyi yoonam ñëpp xam nañ ne tëlewul xeex mais bëre la gën a mën damay bëre ji dinaa la tooñ boo nee bëreet ma juyeloo yow di wax ne lamb ju naqari pronostic la bugguma genre combat yi parce que ñaari xale lañ yoo xam ne ñoom ñaar ñëpp dañoo bokk si ñuy suuxat làmb di dundal lamb tey ku daanu rek dama la yërëm. aada loo koy moytuloo. aadu li ma koy moytuloo mooy bëre bi nekk si tafaam euh, xeex bi nekk si tafaambër tafaambër nag li ma koy moytuloo mooy bëre bi nekk si aada faas waaw. tawfeex ak taysiir xéwal gu bëree bëri. yow léegi combat bi arbitre soufflé ko. waaw waa Rock Énergie ñoo ko indi dafa déménagé léegi mi ngi waa Rock Énergie quoi mais dama koy ñaanal yàlla na ko yàlla may ndam rek waaw ndam lu sedd guy mu yóbbaale ko parcelle loolu rek laa koy ñaanal. Balde gis nga sa mbokk. Balde gis na mbokkam Zil Balde maa ngi lay ziar. maa ngi delloo ziar rek. sama caméraman bi da daa mel ni mbokkam nga. sama mbokk la waaw. waaw. yéen a bokk ca Fulaadu. bokk sa Guinée Bissau ñëw Fulaadu. waaw. tey combat lañ jëm dans quelques instants Ada Fass Tapha Mbeur ñaari xale yi ku ci ne loo koy moytuloo. waaw combat bu neex la. kii dee xaar kii songu. lamb ji neex la. maanaam ku si xe ku si xe ban ban la. da ngay daanu de. ku tax bañ song la. waaw ah, da ngay de. Ah, ku njëkk a song ku njëkk a rek mooy jël ndam li. mooy waaw. sa combat ñu ngi koy coow boobu ba tey Ama ak ki nga xam ne moom mooy euh, Modou Lo nan yóbbu nañ ko mois de mars ñu dégg barki dem menace bi na seen ko seen signature ak promoteur bi le 25 décembre lay yem loolu fu ngeen ci toll. waaw lamb loo gis rek xam ne waxtaan la rek après moom manager bi dina waxtaan ak promoteur bi n ñoo signé woon ñu day taxawaat rek. waaw. yéen da ngeen di déglu rek. mu defal ñu ci ndambe ah maman mën na ndambe waaw da nga fay xaaraat dégg naa ku mën a xaaraat. waay lal ba sang rek. <laughs> maman Tania dafa mën toog macha allah. waaye Balde xool géew bi ñaari mbër yaa ngi ci géew bi dafa mbër ngi ni taxaw ñu koy sotti boo xoolee lim ngemboo daa zone wala boog lu weex la ngemboo. mais am na zone am na rouge bàyyi ci xel kii moom leket la yor di sotti kel la yor ab seetu kay nga seen mu yor seetu ba Ada Fass la àndal combat bii am na loo ma waxoon am na lu ma de yaa ne woon ma ko ci boot Ndakaaru waaw ma seetlu ne ñoom ñaar seen cumukaay yo sorewul te ñoo bokk fuñ ko teg maanaam su ma la mënee wax mooy Pikine la ñu boot xaw ma nag Pikine ay Ndakaaru xaw ma léegi ñu dem ci combat bi loo gis waaw li ma gis li ma analysé woon rek moo ñëwaat tey tey Ada fas dama koo gis tey ba lamb ji ba lamb ji commencé ba léegi teggiwul tànkam ndax looloo koy may ndam ci bés ba waaye Tapha Mbeur la ma ko santoon ci lamb ji tamit la def ba mu tuusee la a dox ci lamb ji ba léegi kon am na fu ñu teg lamb ji ñoom ñaar ku jëpp encadrement gën a liir bés bi mën ngaa daan sa morom ndax tey gàllaaj feeñut gis naa ñaari mbër yëpp joxe nañ gàllaaj feeñut non non non non ñoom ñaar ñëpp joxe nañ normal sarax yi ànd nañ lépp ànd na li ma gis rek mooy tey ji encadrement tey ji su ma ñëwoon Ada dama naa ne ko bu Tapha Mbeur teggee tànkam na ko fa teg buy teg war bi sule na dox ci kawam non da ko xeex ba ne du dëgg cokkaas lay doon pour mën a jiyal moom pour bëri mën a ibbeeku su ma doon Tapha Mbeur bu arbitre bi sifflé day daggale waatoo bi serré garde bi ci kaw dox ci booy bi nank ba mën a jàpp ngemb gi ndax booy bi tey ji indaa la doole boo xam ne ak mobile boo xam ne nii Tapha a am ndam waaye bu imposé booy na ko daan bis boo déggee ñu ne Ada Fass dara Tapha Mbeur Tapha koo imposé da koo imposé waaye bis boo déggee ñu ne Tapha Mbeur tey na ba jàpp na ngemb mën naa dóor boobu coup boo xam ne nii dina yàq bëri boobu te dina am message pour daan ko jaajëf sama waa ji an Pape Mbaye lay waxal noonu koo ko yor léegi a Tapha Mbeur ko su Pape Mbaye bu roog NNC ko yor léegi Tapha Mbeur Ada wala boog Tapha Mbeur léegi roog NNC la nekk waaw mu ngi tekkee paaru ñoom Modou Lo ak ñoom jegaan am luñ koy defal ci gàllaaj ba tey mu mel ni combat bu nar a xat bu taw yaram ñaari xale ndeysaan ñaari xale yi cey waa Fass taal nañu sen fi mi seen de ñaari mbër yaa ngi noon ci géew bi arbitre di waaje soufflé dafa am rek Ada Fass am na lu mu téye benn butel la ñoom bu koog lu weex ba Baldé bi combat cey bi combat cey bi combat Ada Ngongu yëngal rek Ada ngi yëngal rek Ada ngi yëngal rek dafa Mbeur moom tey daa teg kaaral Ndaysaan Balde ñaari mbër yaa ngongu soose ngay wax ak Ada Fass kookoy soose bu Fass def na lu ne ci làmb wallaay muy nuyu waa Fass Fass Benteñe Asas bu la neexee dem Medina Colobane gël tàppe lépp ci Fass waaye nuyu naa waa Parcelles unité 1 unité 2 3 bu la neexee ba 26 waa Dior lépp ci Parcelles kon tey Parcelles la ak Fass cey lamb tey la dimanche 24 octobre wala boog 31 octobre 2021 Tapha Mbeur leen wan ginnaaw aada ah, ngeen jàkkaar lool face ak parcelle avertissement a Tapha Mbeur benn beneen avertissement ñaar ci Tapha Mbeur Tapha Mbeur am na ñaar avertissement laa ilaha illallah nuyu naa képp kuy sifre Equivox TV Awa Diop ca Touba nuyu naa la ñu ngay lewaatoo ana am di Moustapha ana Modou Roubé seen ñaari mbër yaa ngongu walluk teen la Baldé bu kenn jaawale lii billaay ku ñëw ci pindub teen ba ngay yem ñoo ngën a tekk de lewaatoo dara xewagul nag Ada Fass pied droit Tapha Mbeur kon jàppal ñaari pied droit ay waay Baldé ay waay Baldé Tapha boo xoolee ngembam daka toccal ak lu jaune moom la boot ca ginnaaw ngemb la moom lu weex tàll la waaye da ko sotte ko ba mu mujj xal ñu ngay doxe wet mbaa du ñu xeex mbaa du ñu xeex est-ce que du ñu xeex gaay bu leen jaawale lii am na lu Fadam tu waxoon ci combat bi Fallou Ndiaye fi jaar may ñuy may may nuyu waa Ndiaye production Fallou Ndiaye Tafa Mbeng Mor bu parcelle Fallou El Capo Khadim Ndiaye Ndiaye production gi yëpp waaw groupe la boo xam ne tamit vraiment liggéey bi ñuy def am na solo parce que tey arène nationale nii mu mel wax dëgg yàlla bi sa som ubbee ba tey mu ngi nii door a mel loolu it jar naa wax moo tax mbirit boo koy def xam ko da cay baax ñaari mbër xeex Ada attaqué na ko dafa dóor dafa doo koy dóor dafa mbër Ada Fass daan na ko la ilaha illallah oh Ada Fass jël na ko daan na ko ba mu tëdd dafa mbër tëfeenu na dafa mbër tëfeenu na dafa mbër tëfeenu na dafa mbër tëfeenu na Tapha Mbeur waaru na oh Tapha Mbeur ñu ngi koy dippar ñi Ada Fass a ngongu soosee côté di ko yóbbu dafa xeex mu daw dajeeg moom jàpp ko oh Ada Fass mu ngay jooy mu mel ni tey combat bi jeex na combat bi ñu bëri li ñu waxoon mooy Ada Fass na privilège sa bëre bi daa mel ni loolu la def Tapha Mbeur jëm na ko dóor mais dafa wàcc daw jëli ko jàpp ko Modou Fall maa ngi lay ziar. noo gisee combat bi Babacar xam nga Babacar lamb ku nekk bu defee mëninam rek day am li mu bëgg. <laughs> Ada Fass dafa njëkk mëninam ci nga xamante ne nii moom mooy Tapha Mbeur ndax ubbi mëninam parce que na ko uppercut bu dal. mais uppercut boobu noonu Tapha Mbeur na ne bu te génn ci lamb ji ci daanu rek lambam day yàqu. moo tax ba mu dafa wàcc def def la tokkaas bi yëpp li mu bëggoon mooy jaxas ak waa ji mu dóor mu fexe am ci suuf gi parce que mooy ndaama gi waaw. am na solo am na solo kontaan ci jaajëf kon Balde noonu la demee woon boo xoolee ñoom ñaar neexoon nañ ci lépp waaye boo xoolee ñoom ñaari mbër yi nga jàngat combat bi daa mel ni Ada Fass moo ko doon nekk ci biir combat bi début wu lamb ji ba fin wu combat bi boo xoolee tamit looloo feeñ ci biir bëre bi ndax xeex jot na am dóor jot na am waaye boo xoolee Ada Fass la mu mën a da koo def. muy bëre wàcc tibb ko bés ko muy bañ mu dolli ko daan ko jël bu leer kon loolu mooy tey li amoon fi nga xam ne moo di ci arène nationale dafa mbër di courage Ada Fass daan na boo xoolee tam ñoom ñaar ci côté doole daa mel ni ci côté liggéey est-ce que du Ada moo gën a pare parce que yaakaar naa ne mbir mi noonu la demee kon félicitation Ada Fass di courage dafa mbër Ada Fass nan ko bàyyi xel kon gars yi di leen jox dig daje rek ci yeneen affaire waaye di nuyu waa Ndiaye production di leen jaajëfal di wax ne Fallou Ndiaye li mu liggéey tey am na solo ndax ku yokkul yaa wàññi làmb jàngoog dafa mbër Ada Fass na ko kon Ada Fass jar naa bàyyi xel ci làmb